حمدا لمنسل دنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل دنا والداء ومنزل الشفاء والدواء يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مسس ملت يبرى بلا برد وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى من هلاك Serigne Mbacke Fat Sylla mi nga xam ne moo nekk ci boppu seex yi nga xam ne si ñoo nekk ci Darou Khoudoss yëpp xëy na fi ci suba ànd ak mboolem seex yi Darou yi bàyyi fi itam Serigne na Ndiaye ak ñeneen ñi topp ci ñu nekkal ko waaye itam commission bi nga xam ne ñoom nga tegoon liggéey bi seen loxo ñu doon dem ci bokk taalib yi di ab ay camion ak di wuti wàllu gasoil loolu lépp ni nga xam ne noonu lañ ko santaane woon taalib yi defee nañ ko noonu mboolem ñi ñu bokkal kër gi ak ñi nga xam ne ñooy bokki taalib yi nekk ci dëkk bi yëpp yore ay watay beel wala ñu yore lu jëm ci wàllu gasoil wala ñu yore leneen loo xam ne si lu mën a doon lu mën a setal dëkk bi la loolu ànd nañ ko ak ñun ñooñu ñëpp ñu ngi nii sa kanam ñu di ko seereel lii nga xam ne moom lañ daan laaj lu jëm ci xaalis bi ñuy jëndee gasoil kenn ku nekk lam ci daan def def na ci lu raw loola waa maire bi tam yabal nañ fi wate yoo xam ne si ñu ngi fi ba léegi ak benn peel boo xam ne si mooy maasale suuf si tam tàmbali woon nañ ko di indi kon daal kàddu yi nga xam ne si moom lañu jottali mooy li ngeen ñu digaloon daal ñu doon ko jottali doon ko jottali bokki taalib bi ñoom ñëpp def nañ ci seen pësër dañ dul mën a tudd ñëpp nag waaye ku na ne ma Njaay Jong nga xam ne moom avatam da koo jaarale woon Serigne moom Serigne Aliou egsi na ànd na ak ñun ci liggéey bi noonu itam maire itam noonu la ko defee ak yeneen i watu yu bëree bëri marché bi ñi fi am ñu watu ñëpp indi nañ ko dëkk bi daal watu yëpp ñëw nañu taalib ñëw nañu ñi fi yor ñu mën a jëmee ci wàllu wërsëg joxe nañ ko daayira yi fii ba Gédé ñi mbooloo ñi nga seen ñi waa Gédé lañu ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi soxna isa soxna maam isa Mbàkke kan fi la yendu soxna maam bu sa Mbàkke wilaay itam fi la yendu kon daal taalib yi yaa ngi nii di déglu ndigal rek lépp lu ñu sant daal ñu defe ko noonu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndi jël fas ndigalul sëriñ Ahmadou Makhtar waaye ci kilifteef ak njiitul sëriñ Cheikh moom sëriñ Aliou jaar ko ci Serigne Abdoulaye muy président commission bi fas yéene jotal ay cant ak i ngërëm di ko jaarale ci Serigne Cheikh yi nga xam ne moom la Serigne i dénk village bi mu mel war nañoo dellu santaat yàlla bu baax sant Serigne Touba bi nga xamante ni may na nu daan ko def defati ko ci yàlla nañ ko yàgg ànd di def waaye muy jëf joo xam ne buñ ko jëfutoon ñeneen jóge ci àll bi ñëw jëfal ñu ko ngir far gu mu far ak yàlla gu mu yàlla ci barab ak bis bi ñuy waajal tolluwaayam ni mu ni ko yàlla toll ñu sant yàlla bu baax bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci sunu loxo ñu xam ko yàlla baaxee nu ñu fekk ko yàlla kàttanu nu ñu nekk ci nekk ci nañ ci war a nekk tant yi nag ñu ci ciy jiital jëwriñu kër yëpp te mel ne bu ñu tuddee Serigne Mbacke Faty Sylla tudd nañ seex yi Darou Khoudoss ndax ñoom ak ñun dañuy lenn ñu bokk lépp bokk barab bi ñu am ñu ci cosaanoo taxawee am ñu tasaanoo taxawee ci yoonu murid di sant yi nag commune Touba commune bi nga xamante ne xam na ni luñ fi def lu ne moom lañ ko defal te luñ yëkkati mu ñëw ànd ci ak ñun ànd ci ak li moom waaye di bara cant ak ngërëm it mbokki taalib yi nga xam ne bëgg lu baax moo tax ñuy fopp seen alal di ci def bëgg lu baax moo tax ñu fopp seen matériel di ko indi sàkk ngërëmul sëriñ bi moo tax ñu ñëw ci seeni jëmm ak seen doole di liggéey mel ne kon daal sëriñ Amadou Mahtar ak njabootam gépp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal tey wax ne ñuy dolli seen kóllëre seen diggante ak ñoom ngir noppal ngeen leen bu baax ci li nga xam ne moom leen yàlla boole ci mooy ñuy ay jëwriñ di ay njiit te ko gis ko nekk bu sañoon njabootam doon benn ngir mën leen a jiital te mel na ne loolu yitteel na leen soxal na leen lool yéen ngi ci jën seen kant lay mu mel ne keneen ku jóge fi barab ñëw fi ku nekkit xëy na am na fu muy tuddoo waaye nag benn nob lislaam boobu benn nob yoonu murid boobu sëriñ bi bëgg moom rek moo leen fi andi mu mel ne kon néew na bari na jëf rek a takku ak pas-pas li ngeen yéene daal yàlla xam na ko dox na ko sëriñ bi ba mu doy sëkk lépp lu ci diw yiw rek yàlla na leen ko yàlla defal dara yi sëriñ te mu dëppoo ak li gën ci lépp lu nga xamante ni am ndog la wala luy ñaawa la wala luy yàq la yàlla na yàlla dox suñu diggante ak di ngeen xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla bu baax ñun ñi xam ne njaboot gu ndaw gi ànd ak yéen fu ngeen nekk ñu xam ci li ngeen nekk it ñu ngi jotti loolu sëriñ bi di leen xamal ni ñu ñi ngeen leen booleel am nañ xel mu daal ci yéen ak yaakaar. yaakaar ji nag weesuwul dara lu su ànd ci liggéey sëriñ bi rek ndax kenn ku nekk yaakaar naa la ngay soxla ci sa bopp ndimbalul yàlla ak ni sëriñ bi rek nga ci yaakaar waaye li nga xam ne dañ koo bokk te mënuñu koo ñàkk te suñu ko ñi ko amul ñëpp di ko wut kenn ku ne yi wal war teef ci yow yëg-yëg la war a am ci yow te na nga jàpp ne lu ci yàqu yow la yàqu ku ñëpp defee rekk lépp yéwén lépp jag ah loolu nag alhamdulilah bi nga xam ne lépp yéwén na ba tax na ñëpp it ñu bàyyi bët ñu bàyyi xel kenn ku nekk bu ngeen wootee ñu sawar leen wuy si ngir loolu ngir xam ne sëriñ tubaa rek a fi ne ci sëriñ Touba moo nu bennale ci buumug lislaam kon loola xel sëñ bi daal na ci xolam sedd na ci ñun suñu xel daal na ci bu baax yàlla na dool ñu taxaw dool ñu sutura ci defal ñu jàmm bi biir biti jërë ngeen jëf ci sàkku it nag ngeen ñaanal sëriñ bi ñaanal njaboot gi ba yéeneem ci njaboot gi ak ci taalib yi yàlla mën ko eggale ci lépp doon ak jàmmoo ak bennoo ak dimbalante ngir yàlla dara ji sëriñ Bamba bàkki Cheikh Moussa dara yéen jëf waaw. baax na kon te defee ko noonu ñu ko sëñ bi waxee rek. sëñ bi ñaan bisimilah ñaan a ñaan ndigal ndigal bisimilah bàkki Cheikhul Khadim